kon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Cheikh Mouhamadul Muntaqa ci turu mboolem waa daara Hizbut Tarqiyyah ak turu mboolem sunu bokki dongo yi noo ngi lay nuyu di la ziar di la sant noo ngi nuyu sa mbokki bopp yi tedd yii nga xam ne ñooy njabootu Sëriñ Tuubaa gi su ma ci tuddee Cheikh Mouhamadul Bachir. ibnu Seex Abdul Xaadir mi nga xam ne moo yor sa kàddu ak kilifa yu tëdd yi nga xamante ne ñoom ñëpp njabootu sëñ Tuubaa lañ ku ma ci tuddoon rek sax day doy dinañ yóbbaale ñu ci des noo ngi nuyu itam kilifa yoon yi nga xam ne ñooy njabootu seex yi seex yi yi ndax maase nañ ci xam ne Hizbut Tarqiyyah seen alal la ndax yaa ñu tuddee woon soldaaru yoonu murit te xam nañ ne soldaar moom ñëpp ko bokk noo ngi beral itam ab nuyoo waa Touba ak bokki jullit yi ak bokki taalibe yi fu ñu fi mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak bokk yi xarit yi am di jàmm yi di leen sant leen gërëm ndax ku fi teewul itam sa yéene teewal na la fi bisub tey bii nag Mbakke bisub tan sant la ci nun boo xam ne dara fi tew ko kaw cant gi nag li ko sabab mooy ñaan bu nangu gu nu yëg ci suñu xol ak aajo ju faju te loolu yow miy mbàkke yaa nu ko fàggul yow la sa ñaan nangu nga yóbbaale nu yóbbaale ndongo yëpp yóbbaale lislaam yëpp bu ko xoolee ci li nu gën a jege yaa digle woon daaw ci lu war a tolloog at ne na njabootu Hizbut Tarqiyyah gépp doon benn bi nga koy def da nga cee teg ne isbu tarxiya benn la mën a doon wax itam ne dama koo seet ba xam ne ànd gi mën naa am ma soog koo digle dool li nga ci itam ne dëële ne mbooloo mi dina gën a am doole liggéey bi dina gën a taaru te dinañ ci dajeeg ngërëmal Serigne Touba loolu nag Mbàkke fa saasa lañu xam ne soobu ci ndigal li fasku ko yéene def sunu kem kattan moo ci sunu wàll. ndax am na loo xam ne doomu aadama mënu ko yàlla sunu borom moo ko mën a gàttandu defal ko ci tawféex kon lii xéewal na gu réy goo xam ne defaluñ ko suñ bopp loolu xam nañ ko bu wér pàggutéefu Sëriñ Tuubaa la boo xam ne soob na yàlla mu defal ko ko te yow mii la ko teg ci sa loxo euh, lii moo waral bi sa kàddu daanoo xool yëpp nangu ko maase ci nangu ko dong yëpp itam am ci dalum xel am ci mbégte akub cant looloo waral ñu bari ci mbooloo mi waajuñu xaaruñu dañoo dikk fi saa si ànd ak ñun ñu sóobu ci liggéey bi lii lépp nag Mbàkke li ko yombal ci yow mii la nekk ndax ku xool ci say jikko xool ci say melo yu tedd yii xool ni ngay wommatee dongo yi jëmmi leen ci bëgg lu baax bañ lu bon wan ginnaaw àdduna jublu Serigne Touba ak xemmeem loo leen ngërëmal Serigne Touba gi nga xam ne mooy ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla moo dàq àjjana ni ko alquran waxee wa ridwanun min allahi akbaru dalika huwa alfawzu alazim ci sóoratu taw lii lépp nag day wane ne ah, xool ci yow rekk dar ku xool ci yow dara dootu ko gàllankoor te it loolu mooy rafetal itam doxin wi sunu cant nag mbàkke suñ diggante yow dañu cee xeeb sunu bopp xeeb ci sunu kàddu loolu moo waral ñu jël ci kuréelu xaside yi lu tolloog junniy nit jox leen fukki way ak ñaar yu ñu jukkee ci xaside yi sëriñ tubaay yi ñu jàng ko léegi dañ ciy feeñal feeñal ci sunu cant ñaanal la nga yàgg fi te wér te mottali sa mbébét yépp ci toolu sëñ Touba sëñ Ablaye Diop dikk leen ci loolu ba noppi ma door a àggali waxtaan wi